kuréelu liggéeyal ku tedd gi ci yëngu yi nga xam ne baaxoo na ko amal mu bokk ci bu gàmmu jubsee di amal ay waxtaan mu bokk ci thèmes yi ñu tànn nga xam ni commission culturelle tànn na ko thème bi ñu fas yéene laayante biir mu jëm ci achamailul muhammadiya fi kitaabaati cheikh al qadim muy melokaan yi nga xamante ni sang bu tedd bi làmboo na ko mu yonente bi ci ay melokaani jikkoom ak bindam te jële ko ci mbindum sëriñ bi tomb boobu nag ñu fas yéene ci ànd ak e, ku xam ci waaru yi di toorub lislaam bi ci ay waxtaan yu am solo yu muy amal ak di bind lépp loo xam ne amal na njariñ jullit yi mooy Cheikh Abdul Xaadir Buso thème bi xam naa duma ci sori lool ndax comme buñ waxtu wi guddut incha allah comme thème boobu la ñuy waxtaanee te sukkandikoo ko ci mbindum Sëriñ Tuubaa dañ koy bàyyi rek mu nuyoo bu ko defee daal di ñuy duggal ci biir thème bi bu noppee ñu doog a cee sànni kàddu wala ñu résumé li mu wax kon sëñ Abdou Khadir dañ lay jottali kàddu gi rek nga nuyu ñi si déglu ak di seetaan incha allah te dugal ñu ci waxtaan yi ok jërëjëf sëriñ Cheikh bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين بكي ني تيولو دي ني باي خيل في تي جمعة طوبة تي سين تلفزيون ام تي في ني لين دي نوي بو باخ باخ لين زيار دي لا ديلو نيو سيرن شيخ واي دي نوي بو باخ باخ سيرن جيلي سيرن عبد القادر بو سيرن آه. مي فك اك سيرن باتي مي ñu yor wàll gi di jaare ci ñoom di nuyu waa daayira bi yëpp waaye di ndokkeel xeetu lislaam bi yëpp di sant di gërëm bu baax a baax kuréel gi nga xam ne ñoo ñoom lañu àndal ci liggéey bi muy kuréel liggéeyal ku tedd gi sëriñ Cheikh ni nga ko waxee tom bi ñu wax ne nañ ci fàttalante tey mooy euh, melokaani yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. ni ñëwee ci biir mbindum sëriñ bi hmm. melokaan yonent bi nag bu ñu ko waxee rek muy chamail googu nga wax dafay làmb lu bare bari melokaanu bindin wi da ciy dugg mhm. melokaan yi jukko yi da ci dugg mhm. yenn ci ay taxawaay sax mën na ci dugg mhm. ci ni ko kutubu seer yi di waxee am na ci ñoo xam ne sax bu ñu bind ci euh, chamail yooyu melokaan yooyu dañ ci duggal lenn ci siira mhm. ci jaar-jaar yoon tib sallallahu alaihi wasallam ndax da naka jaar-jaaram yépp mhm. eh, wane na ci ay melokaan yu mat mhm. wane na ci ay jukoy rafet waye waxtaan yi dañ mën nañ ko tënk rek ci ñaar muy melokaani jukko yi ak melokaani bindin wi xëy na bindin bi mo gëna mëna résumé ci waxtaané ko motax dañ ci ñëkke liñu liñu xam rek ñun ñëpp yag koo gis yag koo jang yag koo dundu yàgg koo dund mooy xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam suñu borom dako bind ci tar mat sëkk ah dako bind ci melokan bu gëna rafet rafet ah. danaka man nga ne ab tar aku màggaay bu doon day nga ne ah. mom lako boromam solal sallallahu alayhi wasallam, ah motax lolu ay hadith ak akhbar yu dul jeex rod na ci ci misal nañ ci kuñ wax barwa mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi moo gënoon a rafet xar kanam nit ñëpp moo leen gënoon a rafet jukko ndax njoolutoon ba mu ëpp gàttutoon tuguj ñu jëlee ci ibnu isxaaq moom it mu wax ne benn waaye mus naa laaj barra nu yonent bi mel ne ko est-ce que yonent bi sallallahu alayhi kanamam dafa meloon ni jaasi ci xet ak leeraay mu ne ko déeréet waaye kanamam boo koy nurool mën nga ko nurool léegi weer weer la gën a nurool ci leeraay Abdullah ibnu Kaabu daana wax ne déggoon naa Kaabu ibnu Malik muy wax bam bam bam ratee xareb Tabuuk nga xam ne demutoon doon na wax naan ba ma nuyoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar kanam bi da doon ler xati da doon melax ngir mbégte doon wax naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu musaan bég xar kanam gi day leer ba mel ne pièce pièce weer ba mel ni daal luñ daggee ci weer daan ne loolu moom lañ xamoon ci moom Aïcha di soxnaam bokkoon ci ummahatul mu'minin daan wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ku mbégte musaan ñëwal dangay gis ras-ras yi jëw yi day mel day mel xati loolu ab taar mënu ko weesu Abu Bakr Siddiq daan wax ni damaa xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi goo xam ne weer wi dafa leer naññ uh-huh. fii layla mutmira uh-huh. nee na ma ma tàmbali bu ma ko xoolee xool xool weer wi day mujj daal may nattal bi ban moo ci gën a leer ci ñaar yi loolu uh-huh. tamit ab ko weesu Abu Hurayra daana wax naan xar kanam gi day leer ba mel ne weer woo xam ne dafa nekk ci fukki fanam ak lu tekk fukki fan ak ñaar jëm kaw fan yooyu ni weer wi leere neen yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo mosaan xool kanamam noonu lay mel ali ibn abi taalib mel gi mu ko mujjee melal dafa wax ne yonent bi mooy koo xam ne boo koy soog a gis day am xëyba da koy jox respect da koy ragal man ra'aahu badihatan haabahu waaye nag boo jaxasoog moom nag da koy bëgg te loolu mooy ak nit dëgg-dëgg nit ku mat dëgg-dëgg noonu la dundee ak moom boo koy soog a gis dang koy bàyyi xam da koy bàyyi xel waaye boo demee ba jaxasoog moom da nga koy bëgg man xaalatahu maarifatan ahabbahu daan wax ne man mosumaa gis ku mel ne ku mel ne du am musta am te dootu am macha allah ñu wax ne yëpp nag Sëñ Tuubaa résumé na ci ay bayit yu dul jeex yu wuute daana wax naan nabiyi nabiyun jammalallaahu zaatahu kon jëmm ji moom yàlla taaral na ko kama ahsanal axlaaqa bi tuuri wa ruqi macha allah moom laabaloon na léppam jukko yi ak bind bi muhammadun axjalat anwaaruhu xamaran mooy li ñu doon wax léegi ay ay ay ay ak leeram danaan gàccaal weer wa kullu shamsin xawat fi daw i abhaahu waxuma la weer sax waaye jant rek mën nga koo méngale ak leer gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nabiyuna lam yakun charwaahu fi lqudama mooy li ali mujj wax mooy mus sa am moroom ca ña jiitu woon wala yura sarmadan fi lxalqi charwaahu tey du ko musa am نبي نبي جمل الله خلقه كن يال رفتلنا بندم تارنا لول واخلاقه اي رفتلنا اي والجود مزر مزر لهالطالي طبعاً غا دران غاتشال الطوب باري باري نبي نبي جمل الله خلقه واخلاقه خال البرايا الى الحسن اي بيد باري باري باري ما شاء الله يا خني سيغ توبا داكي واني معنى الحديث يوي جالا bu ñëwee ci melokaan yi bindin yi ay xadis yu dul jeex ron na ci jóge ci saxaaba yi ñuy melal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yàlla binde woon ak ni mu taaroo woon sëñ bi nag bi mu ñëwee dafa mel ni daf ñoo résumé la xadis yooyu doon wax yépp andil ñu jawhar ba macha allah ci ci fukki bayit ñu nekk ci jasbul xulub muy fukki bayit yoo xam ne daanaka xadis yi yi wax ci melokaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam yépp mën nañ ne fukki bëgg yooyu làmb na ko uh-huh. boo delloo ci masaadir yi source yi nga xam ne ci lañuy dellu ci wàllu siira uh-huh. ngir bëgg a wutal euh, jukko yooyu jukkoy melokaan yooyu wala melokaan yi bind ñooyu boo ko bëggee wutal ay cosaan uh-huh. bëgg koo tasil bëgg ko wutal ay adilla da nga fekk ni yëpp yu wéer la yëpp yu siiw la ci téere siira yi ak téere yi nga xam ne dañuy nettali chamail yi sëñ bi Euh, man nañ ne jëlee na ko ci ay masaadir yu wuute. waaye eh, dafay mel ni li gën a leer gën a gën a gën a nuru gën ma ko nuru mooy xay na euh, nuru na ko lool ne ci chifa la ko jële chifa bu qaadi ah, Iyaad waaw ah, ndax chifa boo boo boo delloo ci texte ba muy leerale euh, ni ni ni melokaan yonent bi sallallahu ni ko yàlla bindee woon di nuroog jës bu loolu te ma koy leeral dafa wax ne lii may waaj a wax wér na صحيحة لا مشهورة لا ما شاء الله يعني كأي روايات يوير الله جلي يسيو يوحنا آه. تسارة نتي آه. كتب أحاديثي دا آه. وحنا أما صورة وجمالها نيكو يالا بندون أن يمتارو وتناسب أعضائه في حسنه ak ciri nim deppo nga xamne ben debordé wu ci dan ni dan ni faqat ja'at al athar as sahiha loolu moom leer na waaw maanaam ay ay ay nettali yu wér yu siiw ci la ñëwee daane min xadiisi ali ali nettali na ko anas ibnu malik nettali na ko abi hurayra barra aisha ibnu abi haala abi juhayfa jabir ibnu sumra ummu macbad ibnu abbas macrad abi tufayl al adda bun xaalid وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم ما شاء الله ني نيب نينا نيون سيسان نانغامك نانغامك كون اي دار تاني اي ثقات تك ني اي ثقات نك تا بو قاضي عياد وخي قاضي عياد خم نني نيب خم نني محدث لا محدث لا دا لان ديف نقد الحديث تي لو وير وير جامبار لو ام تي اي تير يو دو la qadi iyad wax nag mom la suñu tubaa tënk ci jës bu mhm, daat koy tàmbalee ci ya mulhiman qad waffaqa salli ala man quliqa wal khalqa faqa xuluqa kal khalq wal tusallim mhm. lol ci gatal moy indi bi sallallahu alayhi wasallam mo kawé ñi mhm. ko yalla binde mo len kawé ay jukko euh, bindin ni lim ci ñëk leral moy taxaway bi qad kana dha tawassut fi al qad jalis sutut maanaam ku yonent bi salaa salaam ku diggu doomu won ab taxaway la moy ndolu ton ba mu ëpp ولم يكن بالمفرط ولم يكن بعدم لول موي تخواي بي دا فا ديغ دو مون تا لول نيونا سي حديث برا ناخ واخنا ني يونت بي نيولو تون لول غاتو تون لول مفرط موي لول غا خامني كو خامني دا فا دا فا دا فا اوب سي ام نجولاي فا نجول مو اوب يعني بو خولي ني بو خولي جيم جي دا مين لو وينغ ولا مين نون ديريت مين تون نون moo tax ci yeneen yeneen riwaayaat ji da gis naa ñu naan riba la woon riba fil xadd uh-huh. mooy ku diggu doomu woon la uh-huh. ab ab taxawaay uh-huh. wa huwa bahiyun uh, uh, mu teg ca walam yakun bil mufrat walam yakun bi aadami mooy xonqutoon cur yonent bi sallallahu alayhi dañuy wax ne nekkutoon ku weex tàll waaye nekkutoon tamit ku mm-hmm. xonq cur mooy mm-hmm. dafa nekkoon ci digg ci digg bi mooy asmar la woon loolu dana ñëwaat ci bayit yi waxoo bahiyun mm-hmm. asmaru mu nekk ci ne walam yakun mutahama nekkutoon ku duuf ku am yaram ku ataa bari bari yàpp ba noppi mel ne lu ndaw déedéet melutoon noonu walam yakun mukalthama nekkutoon ku gàtt ab sikkin koo xam ne sikkin bi nii dafa gàtt yaa ne booy xool kanam gi si as sikkin su ndaw lay yor da loolu dana firi mu ka mu kalsam mu kalsam it danañ ko firee koo xam ne kanam gi dafa ron waaw ndax ñëw na ci xadis ñu ne yonte bi laysa bil mutaham wala bil mukalsam loolu la Sëriñ Tuubaa bëgg a wax bal faaxa kulla man sama min muntamin li aadami kon ñëpp moo leen kawe woon ci ni ko yàlla binde kaana yatuulu kulla man maashaahu fii kulli zaman lii nag dañ ne kéemtaan la woon xam nga dañ ne njooltoon mu ëpp gàttutoon tuguj waaye nag ku ku ku musaan ànd ak moom moo lay sut moo lay sut waaw boo demee ba ànd bi jeex nag mu daal di digg doomu dëgg doomu waat oh, ah, gën a buñ ko seqoon da gis ne moo leen di sut moo leen di sut waaw bu loolu jàllee nag ña comme ñaar ñaar ñi gën a njool ñu toogee it moo leen di toogaay bi nii moo leen di sut waaye bu lépp jàllee nag boo ko xoolee moom day digg doomu ci yow dañuy wax ni ci xasaa yi ci la bokk ak ci ah. dalaa il nu boobu yi ci ah. kiimtaan bi sallallahu alayhi ci la bokk وكان واسعا عطن كياتون تنقل ام ني موي باري علال ام ني موي مانا جوخي وهكذا موم تي ميلو كانم ني نون يضحك بالتبسم راي دا دان اندك كيرسا داوت حق تاي وا دا دان راي با اي بنيم فيني رك لول موي موم لا سيني بي دي واخا تي كانم نان يفطروا في اسن في اسن تسامع مو تك ني هو جليل خلب ماغلون كو كاي وون درجه واي خلب لا xulla mooy ko am gis-gis gis-gisu biir basira arab yi dañuy wax naan diw xuwali xullab mooy ko bari pexe ba noppi am gis-gis bayaaduhu musharrabu bi xumratin loolu mooy leeral li mu waxoon ne walam yakun bi aada bi mooy xonqtooñ coro kon dafa dafa xeereeru ndaal xeesaay boo xam ne day jëm ci xonq mooy asmar rek wa ahdab ku bari woon ay kawari mbari bët la waaw loolu dañ ko firee ahdab uh-huh. wa anjalun suura uh-huh. mu teg ci ne euh, ku yaatu woon bët la uh-huh. anjal mooy waasion ay nañ bu nag bët yi dafa amoon ay rëdd ay rëdd yu sew yu rafet rafet wa anjalun suura moo tax mu ne wa anjal suura sami yastaru fi asnab tisaam kal barqi aw xabil xam boo jékki-jékkee gis bëñ yi bu muuñee daf lay nuru ak melax wala mu lay nuru taw bu yuuru ci tar bi ak rafetaay bi waaw wadax hu yajlu dhalam ka surujin fi zulami bu musaan ree bëñ ñi day wex tal ba fu lëndëm da koy leeral nañ wajhu mudawwar kanam gi dafa ron huwa khamisun azharu khamis moy bir bi dafa dafa dafa lohon dafa dafa dafa dafa wos nekk toon koo xam ne biir bi dafa génn xam nga loolu ak débordement lay lay nuru maanaam dañuy wax ne digga biir bi ak gannaaw bi dañoo ak ak dënn bi dañoo tolloo woon dafa maase woon waaw mooy xu xamiisun azharu am na ci benn riwaaya boo xam ne dañuy day wax naan sawaaul batni wa sadri mooy dënn bi dafa tolloo ak ak ak biir bi dañoo tolloo woon azhar mooy ku taar la woon rek azhar loolu day firi foofu mooy ku taaru woon la ab ab ab melokaan am na ci xadisu anas mu ne laysa bil abyadil amhaq wala bil aadam kon nekkutoon ku weex tàll wala bokk xonq curr waaye azhar la woon waxwa bahiyun asmaru murattilul takallum bu daan waxit wax ji day toftaloo day neex kaanna maa addahabi fii xaddihi lmuhallabi leex bi boo ko mosaan xool day mel ne ndoxu wurus lañ ci jaarale ni muy leer xatee wa kaana sabtal xasabi maanaam xasab mooy yàq mm-hmm. bépp cër bu am yàq rek lu mel ni ñaari përëg yi lu mel ni ñaari mm-hmm. ñaari ñaari tenq yi mm-hmm. lu mel ni ñaari yeel yi loolu boo ko xoolee da daan tàlli dawul banku waaw da daan tàlli wakaana sabtala bakkan bi nii moom it dafa yëkkatikoo waaw nekkutoon bakkan bu tàpp ndar kaamilu usn bank nopp yi dafa matoon sëkk addaange mooy li waroon ñuul ci bët bi ah. mooy per bu ñuul bi dafa ñuuloon kukk ah. Ah. wa ashnab dafa amoon ndoxu bëñ mu muy leer xati leer nàññ mu fallaj moom it dafa amoon sàkk lu yàlla wu rafet waaw wa ashkal eh, dafa amoon lu luy xonq ci weexaayu bët bi xam nga bët bi li ci war a weex dafa mel ni dafa amoon benn ndox bu xonq bu koy rax loolu ci ci taar la bokk jël nañ ci xadisu jabir ibn sumra mu naan yonte bi sallallahu alayhi wasallam kaana ashkalal da ñu wax ashkal ma aynayn jublu ci it koo ni yalla xare bi dafa yaatu ni ah, wa dafa yaatu mubtahi ji ku bare woon la wala wucc ma xel wooma kon da ngay gis ne li ay melokan la yo xamne ñew na ci ay riwayat ju motax mm-hmm. tek ci ne wu akmalul wara mm-hmm. kon mo gëna mat ci nit ñi khalqan wa xulqan zahara ci ni ko yalla ya binde ak jukom wal mislu xattu lam yura wala yura fi chemi Lima ta xame fi nak, moy tuddu melokani bin yunus sallallahu alaihi wasallam waxum ko ni rek ngir ngir ngir ko wala wala ngir wane wane ne dafa mel nu ken melu dere waaye ah. dafa am lu mi jariñ ndax melokani bo ko tuddu man lañ ci tuddu ñaari njariñ ah. ndax day wane jamaalul mazhar loolu ah. ni ko yalla binde lépp mat na dana la apporter Eh, kenn du mën a jaar fenn ba man laa xas ci lenn mhm. loolu benn la ci ñaareel bi it mooy da nga neex a bëgg mhm. moo tax dangay gis ne ñi ko bëggoon toujours bu ñuy wax ay melokaanam di gën a fàttaliku ni ko yàlla bindee dañ koy gën a bëgg dañ koy gën a sopp kon melokaan mu rafet ñaar yooyu bokk na ci ay njariñam mhm. moo tax gis nga ñi ko bëggoon yaram na leen lu ne am ñoo xam ne buñ ko mësaan gis daanaka dañuy dañuy dañuy daanu jël bu dee melokaan yi jukko yi mom bari way mom foko tak wess nako na ko daanaka mën ngaa wax ne euh, boo jàng siiraam wala ah. nga jang hadisi yi yëpp ay melokaan yu la danga gis ne torox lo ngi ni bo nopi ànd ah. ak ak ak ak ak ak dang ci gis ne ku bari kersa ngi ni kersa gu ànd ak uh-huh. dang ci gis ne ku tabe ku tedda ngi ni ko xamne amut kay gis kay kay len gis ma mooy li muy def du ko àddu ko ci ànd ak ngistal da nga ciy gis ne ku wóor a ngi nii ku dëggoo ngi nii ci nu mu daan waxee ak nu mu daan jëfe hmm. booy gis booy jàngee siiraam da nga gis ne ku dëddu woon àdduna la te hmm. àdduna wan ko kanam da gis ne it ku seetlaloon la ci digganteem ak suñu boroom ci lépp luy jóge ci moom hmm. da gis ne ku amoon fasaaxa la ci làmmiñam waaye tamit ku woon ab xolam la ci di ko orienté ci ni ko yàlla suñu borom bëgg da ci gis ne ku ku ku amoon xel mu dëgër la mm. da ci gis ne ku rafetoon ak dégg-dégg la mm. da nga ci gis ne ku daan yëram gone la ak mag mm-hmm. da nga ci gis ne ku nooy la woon ku ku ku bari woon yërmaane la ku mënoon a jéggale la ku mm-hmm. mënoon a jëlle la mm-hmm. da nga ci gis ne it ku sori woon ak euh, tar la ku sori woon ak ak dëgër da ci gis ne lu mu mbir lu mu musaan métti métti ku ko mënaan muñ la. Mm. lu ko yàlla musaan joxe ku ko mënoon di sant la. sant la da ngay ku ñeme woon la ci wax dëgg. Mm. kon yii yëpp ay melokaan yi jukko la. Mm-hmm. yoo xam ne feeñ na bu baax a baax ci mbir mu sëriñ bi. Mm. ndax mën naa wax ne melokaanu jukko yi jaanib xuluq yi bii. thème bu mën a aborder da ngay seen da ngay seetlu ne. wane jukko yónni bi sallallahu alayhi da caa feeñ da caa loolu loolu nag du kimtaan ci koo xam ne dafa jugoon eh, di yeesal di ne fekk sunna si eh, raaf hmm. mu koy mu ko mu koy delloo si ak koo xam ne dafa dafa bëgg a delloo si waat njàngaleem yónni bi sallallahu alayhi ak koo xam ne dafa jug ngir tagg yónni bi sallallahu alayhi ak ngir gën koo xamal doomu aadama yi hmm. moo tax sëñ bi wax ñu lu leer ci wàll wàllu melokaan jukko yi xam nga ba mu waxee ne rek wana kullu zu ilmin wa sa'yin wa ñett ñoo ñoo fi nekk ku yàlla jox xam-xam kuy def lu baax ak borom daraja ñeneen ñi ñëpp mënuñoo mel ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jukko anil Mustafa fii xulqixil xaa'isil ulwi waaw bayit boobu rek doy na sëg waaw teg ci nag wax la ay ay yenn ci ay jukko boo demee ci muqaddimaat wajih la wasul wasil wasi wasim wahaab wasi wafiyun كريم واعد بوتينا رك من نا وقتا من نا بوتينا كا قام لوم لا ديك دوم لا ديك جوخ لاكو فنان مي وخ نان نويت دوام الذكر آه، والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين طار وون كو يالا طارل نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس نجي قريب ذاكر وهو شاكر غيس نغا بو تي نريك جوك لا بو خاني مانيس نجي وقتان وقتان ويا ذاكر لا شاكر لا ذاكر لا شاكر لا كوي فات ليكو يالا كوكاي باي خيل باي كو مانا سانت يالا تي ديل تي ديل تي ديل لو خيو لي سيني بروم تي فام كو سانتاني نقي نتقي صالح لا مصلح مصلح الله <laughs> واو نبي لا اديب لا ذو حياه الى اخره kon yooyu yëpp ay jukku la. daayira bi fa Moukhaddamatoul Khidma dana faral def ñaari ci gàmmu gi. gàmmu gu jot mu tànn benn jukko waxtaanee ko. waaw ndax ndax ndax ndax lu mel nii la ci seetlu. boo demee ca mawaahibu haadin mujiiru haadin la mujir la. mujir la nuur la muniir la. leer la day leeral. xaydu la bashir la. li si tidaay. xaamin la nasiir la daa'in bashir laydun nadiir li si tidaay. mawahib moom daf lay wax ne melokaan bu ne ak fam ko jëmee fam ko jëmee waaw ku mën a xetle la kuy bégle la ci koo xam ne dangaa dangaa dangaa sax ci ak njub dangaa nekk ak jullit gëm waaye tamit nag lay dun nadir gaynde la ku mën a xuppi la li senti daay ci koo xam ne dangaa jalgati dangaa tooñ mushkil li shaakin ku mën a dindi tawat la ci koo xam ne dangaa tawat dangaa am looy jàmbat bishrun li baakin ku mën a bégal kuy jooy la hmm, musqin li xaakin ku mën a diglu ku jàmbat la kuy li hmm. waaw wadi ni daay hmm. ku ku soobu mën na laa mën laa teg ci yoon mun jin li saalik man na mucc la muccuwaay la pour kuy jaamu yàlla jaali xawaali kuy dindi ay njàqare ak i lëndëm la en gun mu faqiir boo nekkee ku ñàkk am koom la. am koom la bu fekkente ne da am ay gaañu gaañu da ngaa nekk ci ay njàqare. Mm. mën naa wax ne ordonnance la. Mm. da lay jàng surtout xaqiir bu fekkente ne da ngaa xeebu. Mm. daraja la joo xam ne boo ñëwee. gis ci sa bopp. waaw wa huwa mm-hmm. loolu moom beneen beneen dimension la. Mm-hmm. ku ku feeñ la waaye ku nëbbu la. wa huwa najiyu kon daal ci gàttal Serigne Cheikh mën na maa wax ne. Mm-hmm. lii. ay jukkal yu bare bare bare bare ak i ñoom da fay feñal waccu way yonent bi sallallahu alayhi wasallam yo xamne kenn mënu koo cibbu wax lii bàyyi lii waaye lu ñuy junj rek la moo mu wax ca raaya ne wax woon najibu lasi fi wasfi wa wa la di melal ay ak yàlla wax nañ ci lu jeex ci ay sajo ak way

daan ne kan bo ngi ni Hassan Bousayr ñom ñëpp wax nañ ñom ñëpp seeni way ay leer la ay mbod la waye nak liñ ci mëna wax moy ki dal yalla ko binde fako yàlla tek ak lam ko def xel agu ci xalaat agu ci كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار annahu basharun yaakaar naa mënees naa tënk loolu sëriñ Cheikh mm-hmm. ci ni yàlla bindee woon yonent bi sallallahu alayhi ci ni ko sëriñ Tuubaa jàngale mm-hmm. ak jukko yi nim nim yaatoo nim baree ak li ci sëñ Tuubaa junj ak mm-hmm. lam ca yaatal ca barab yam ko yaatal xam naa du ñàkk yeneen jotaay insha allah jukko yi dañ jël par yennat jàngat ko mm. wutal ko ay cosaan ak i source insha allah euh, jërëjëf euh, sëñ Abdou bu Bousso wax jaar liñ doon seentu am nañ ko niñ ko bëggee muy tënku na lool waaye leer na ci ñaari anam yi nga xam ne leerale nga ko euh, chamail yooyu muy melokaanu bindam sukkandiku ci jës bu te li ko jiituut wane nga ne lii sëñ tubaa njëkkee ko waaye ci ay boroomi xam-xam yi fi newoon ci ay nett luy wér-wér ci la jóge nga ba nga indi fukki bayit wala fukki bayit ak benn wala ñaar yoo xamante ni ci jës bu leeral ci melokaanu bindam te loolu siiw ci ay riwaayaat yi wér a wér a wér hmm. nga wane tamit bi ngay tëj buntu boobu wax ne nettaliw ñu bindub yonente bi akub taaram ngir nettali ko noonu rek waaye dañ cee mën a jàngate ne hmm. eh, jamaal boobu ko yàlla defal muy jamaalu zahir bi hmm. dana waral kenn du am aw yoon ci yow bunt bu ngir xas la su la bëggoon xas ci bind du am fu mu jaar ndax gis na yàlla matal sa cër yëpp ba ca desit dana ñoddi ñi lay waxtaane ci ñu gën laa xemem gën laa bëgg mm-hmm. ndaxte boobu bu ñuy wax ci yow gën a sawar mm-hmm. te loolu it lu am solo la moo ne ne daal loolu ndake ndake neenut maanaam yàlla taaralu sang bi saa sallam def ko mu gën a taaru ñëpp ngir mu gën a taaru noonu rek mm-hmm. waaye dafa am sabab beneen bi ci desit mooy bi nga ñëwee ci ay jikkoom résumé nga bu baax a baax wane ci e, muxaddamaatul xidma e, muxaddamaatul am daax ak ci yeneen raa yi ak yu mel noonu wane ci ay jikkoom yi nga xamante ni sëñ bi tudd na ko yëpp sax benn bu ci nekk mat na waxtaan waaye ngir xataay waxtu bi waaye ñu dégg ko tax xam ko rek xam ne xasiday sëñ bi fees na dell ak tagg yén saay salam ak ay wane ay jikkoom euh, loolu na lépp nag boo ko boolee dañuy jox rek li sun borom wax ca euh, di ko tagg wax ko ne ko innaka la ala xuliqin mm-hmm. moom daal bu fekkoon ni jikko ju rafet fasu naaru góor la yow rek yaa war yaa ci kaw mm. loolu yaakaar naa doy na sëkk da ngay gis même ci xasida ak euh, mawaahib googu nga nga wax sànq euh, nga rabbin am solo mu def ci yonent bi sallam in raama aw raama gunman aw raama zulman baaxi liqaay nga gis ni kay gis nga bayit wa cay topp mooy tontu yële fa zaaka yuhda wa zaaka loxo yurda baabi shaqaay kon day mel yeen saa salaam matal na lepp hmm. kon duñ def lu sant la bu baakha a baax gërëm la ñaan yalla yokko xam-xam bi. Hmm. Eh, yagal taxaway bi. Hmm. kon mbokk yi li lañ leen indiloon ci turu ku kuréelu liggéeyal ku tedd gi. di santat bu baax muqaddamatul khidma ci taxaway am solo yi ñi def. ak jappandal gi ñi jappandal waxtu wu nekk rek eh, sa buñu soxla soxlaa yu mel nii te xam ni ci liggéeyal Sëñ Tuubaa rek lañu dox di ñaan yalla defal ñu tawféex Euh, di ndokkeel bépp jullit comme ni nga ko waxee ci gàmm gi di ñaanal sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk koy leer te euh, taaf ñu ci barkeem te saxal ñu ci aw yoonam te def ñu dëgg-dëgg taalibe Sëñ Tuubaa yi Sëñ Tuubaa nangu seen taalibe wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin